waaw salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi siyaar àdduna bi yëpp di siyaar waa Sénégal di siyaar ñëpp ah di bëggee Sénégal sama réew waa ah. di ñaan yàlla lii di Covid 19 bi yàlla na ko fi yàlla jëlee ci barki Seydina Mohamad maa ngi siyaar ñëpp di bëggee ñëpp ah naan ñëpp ñoo ngi sant bu baax di ñaanal ñëpp ñu sant. dafa am loo xam ni tey dama bëgg ñu leeral ci tuuti dafa bëgg dama bëgg ñu wax ci tuuti parce que dafa am loo xam ni mi ngi law mi ngi law di law di law muy lan tey nag ci cadre mbëri laa jëm dama toog semaine bii rek ak semaine bee li ma toog ñu ne ma ay mbër feebar nañ ci ak ay mbër am nañ ci problème dafa bari trop trop trop waaye fu ñuy mujjee mooy amuñu ñu leen faj mbër yi damay njëkk a wax ci mbër yi nga xam ni ñu ngi en activité ñu xool ñu ubbi seen xool ñu ubbi seen bët jéem a jàng ci ñii nga xam ni tey am na lu leen dal ak ñii nga xam ni tey am na leen gàllankoor ba te mënuñoo faj seen bopp ñu mën a lijjanti seen bopp mën a garder seen bopp mën a xool nan la ñuy fexee ba génn ci situation yi benn am na damay njëkk a wax ak CNG waa CNG maa ngi leen di bégee maa ngi leen di siyaar waaye damay ñëw di leen ñaan xam naa ni mënoo leen faj ñépp te xam naa ne mënoo leen lijjanti cas par cas mais ngir lillaahi wa rasuuli yi dama bëgg ngeen wax ci wala ngeen def ci dara ba ñu xam ni yéen ñi yëg ngeen mbër ñi yéen ñii fonk ngeen mbëri yéen ñii am na foo leen teg mbëri ndax lii garaaw na trop mbër yaa ngi feebar mbër yaa ngi gaañu mbër yaa ngi am problème mbër yaa ngi tëdd seen kër yi mbër yaa ngi paralysé mbër yaa ngi toog mënatuñu dox te lan amuñu leen faj lu tax parce que seen carrière moo demeewul noonu ma leen di ñaanaat président Alioune Sarr maa ngi lay ñaan sama papa nga man dama laa naw dafa am fu ma la teg ministre de sport dama laa bëgg dama laa naw dama laa fonk maa ngi lay ñaanaat en tant que lutteur boo xam ni tey mi ngi en étranger jàppee ma lutteur jàppee ma ki bokk ci groupe bi jàppee ma ki bokk ci mbir mi jàppee ma ni am naa licence tey damaa bokk ci yéen moo tax ma ciy wax bu ma ci bokkul woon du ma ci wax maa ngi lay ñaanaat. ngeen jàppale mbër yi nga xam ni tey ñoo ngi am problème te bu lii lépp passé ba saison bu ubbiwaat ngeen ubbi ay liste ay ay ay ay assurance assurance yoo xam ni pour làmb ji la assurance yoo xam ni pour après làmb ji la assurance yoo xam ni pour avant làmb ji la mbër yi di ci dagg ku ci jël avance ñu dagg sa assurance nga xam ni bu ñu feebaree dinañ mën a jël ci kees boobu faj leen mais nii muy lawee nii ñaaw na trop mbër yi di feebar ñu leen di ketal mbër yi di feebar ñuy am problème mu faju damay ñaan ma commencé ko ci man mbër yi nekk en étranger yëpp nañu jéem a jokkoo suñu biir man sama numéro ku ko laaj Lamine Lutte TV dina la ko jox sama numéro ku ko laaj Balla Gaye dina la ko jox sama numéro ku ko laaj Gouye Gui dina la ko jox sama numéro ku ko koo ko laaj dina la ko jox ñu jokkoo def benn groupe te xam ni ci làmb lañ jóge te lépp lu ñu am ginnaaw yàlla làmb moo ñu ko defal ñu jéem a ñoo ñu nga xam ni tey ñooy ay mbër te feebar ñu def benn groupe lépp lu ñu am ñu jël ko teg ko ci table bi lu g am wala ministre des sports lu mu am ñu boole ko jéem a xool mbëri ni leen di jàppalee te yàlla tax feebar bi bari na te ci mbëri rek nga koy dégg kenn xamul lii lan la ñu feebar nag ñoo ngi leen di ñaanal yàlla may leen wér ak jàmm ak salaam waaye maa ngi ñaanaat mbëri yi ngeen bàyyiwaat seen xel bu baax a baax a baax a baax te jàng ci ñii nga xam ne lii dal na leen. te jàng ci ñi nga xam ne tey ñu ngi bëgg a faju amuñu lu ñu fajoo ngeen xool noo leen di defaree seen avenir xool noo leen di gérer seen carrière ndax lii c'est grave mais mbër yi nga xam ne ñoo ngi en activité fu mu nekk nii yal na leen yàlla sàmm ñi nga xam ne tey ñu ngi tëdd feebar yal na leen yàlla yëkkati maa ngi nii nag maa ko njëkkee mbër yi nekk en étranger yëpp néew leen ñu jox koo def benn groupe jàppalante jël xaalis def ci kees def ci groupe teg ko fu wóor jàppale mbër maa ngi leen di siyaar di leen bëggee jaajëf